Modou Mouhamed Ndiaye. parti démocratique Karim Wade moom la l'observateur xëy di ka ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ci jamono ji ñuy waajale élection présidentielle yi ci réew mi candidat yu bari ci leader politique yi di yëglu waa parti démocratique Sénégal ñoom seen candidat bi ñu tànn taamu ko ne moo leen di taxawal ci élection présidentielle yu mu di Karim Wade yéenekaay bi ne nañu boobee ba léegi kenn gisu ko ci réew mi mu di lool bu dakkul seeni borom buñ ci jugul mën nañ ci am yeddange Ousmane Sonko mu njëkku la bi dañu wax ne njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko ma nga woon ca Yoff démb ci kaw ngan gu tënk woon ci wote bi Maam Limaamu Laay bañ fa doon màggal fan yi Mouhamadou Lamine Laye ma doon wax ak moom xamal na ko ne ñun jàmm la bëgg ci réew mi mu ne koy kuy wut am réew danga koy jaare ci ay lii tukkee ci urne moo ñu gënal fuuf di wàcc ci mbedd yi di defar wax na ay dëggam kii di Ousmane Sonko nekk ci yéen saxal ko defee saw ñooñ bàyyi ba woote jot ñu woteel gis ne kilifa diine yi ñoo ngi dëkkee di wax ak way politiciens yi waaye liñ leen di wax dafay mel ne luy dugg ci nopp ndeyjoor bi bi li tax ba ñoom kilifa diine yi ci réew mi seen wax way politiciens yi jàllul Walf Quotidien mi moo di joxul cër benn kilifa diine ci réew mi ay pexem ay projet yitteem moom Ousmane Sonko moo di yàq Sénégal te loolee tuut na ci ndax réew mu mel ne Sénégal ay kilifa yu mag te sell tëdd fi réew mu ni mel ku ko bëgg yàq yaa yàqu tur nañu te borom mouvement Macky encore yamu fa moom nee na waxul waxi candidature président Macky Sall ci élection présidentielle 2024 li mu bëgg nee na mooy ñu ànd ak Macky Sall ba ndax fi réew mi toll jamono toll fi ak li mu liggéey ci Sénégal bi mu fi falo ak léegi loole rek war naa tax jour gis na ne moo am ci élection présidentielle yi ñu jëm ndax dara leeragu ci li leer ba leer tit bi nee nañu moo di opposition bi Macky Sall li mu bëgg mooy nelawal leen ak waxi troisième mandat yi ñu nekk cay wax ba fàtte li jënti coowal parrainage beeg coowal code électoral bi député yi Yewwi Askan Wi mer nañu lool journal Life moo ko bind ci xëtamu njëkk Sud Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne li metti ci seen xol ñoom député yi

vidéo di ca wax ne bés bu fi ab procès public amee ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom dana rey Adji Sarr journal bi nee nañu beneen mandat dépôt mi ngi koy yot